ci ci ci loolu buñ ko weesoo ñu enchaîné ñëw ci ki nga xamante ni moom mooy euh, tafaatin booy ñaa gis nañu tafaatin Tine dellu si waat gis nañ ni mu bëree ak Boy ñaa lan ngay jàngat ci làmb jooju dafa mel ni ki moom i tamit euh, euh, daa mel ni ximmaliku na de. waaw am na lu ma la ci waxoon nag nee naa la li ma gisoon mu war a dal tafaatin moom moo dal Boy Niang te gis nga buñ ko waxutoon ba mu siw duma ci wax mm-hmm. dama la ne li may xaar ci Tapha moom laa mujj gis ci Boy Niang mooy Tapha dafa amoon ay sëriñ Tapha dafa amoon ay sëriñ mu wor ay sëriñam wor ay mbokkam moom sama xarit moom moo def loolu moo dafa wor ay sëriñam wor ay ay ay mbokkam yi nga xam ne dañ ko jegoon te loolu moom xam na ne ba mu ko defee bawol bawol yëpp dañ ko bàyyi. yaa ngi dégg li may wax nii nag ay preuve yu leer nañu laa ci am te wax naa la ne bu dajalewul mbokkam yooyu ak sëriñam yooyu damaat ba ci ñoom jaxasoo ak ñoom du am ndam ci làmb ji. yaa ngi dégg te gis nga combat boobu loolu lañu loon xaar ci moom ndax jàppoon naa ne sax duñ régler diggante bi hmm. mais yàlla daf ñëpp dajalewaat àndaat ak moom te nee naa la jamono ji mbër bu bu bañ defet hmm. bu bañ defet bul jël tafatin ba ci Bombardier dama ne Bombardier ak Balla Gaye ak ñëpp laa wax ku ci bañ defet boo jëlee Tafatine dina la daan toog sa kaw. mais da ngay andi laa Tafatine problème de gëj a bëre daaw rek war a ñëw dem bëreek ay moromam. ngay tiital gaa yi ne leen bu leen. non lu leer laa la wax li ma lay wax nii kay fii laa ko waxee. parce que waxuma ko ngir xam nga tamit dafa am ay sëriñ yoo xamante ni dama koy déglu sax ci ci ci site internet yi depuis fan yëpp mooy di wax naan dañuy ëlbati mbir déedéet loolu amul. yooyu ñuy wax ay waxu caaxaan la ak bëgg a setal sa bopp dama ne loo xamul ba di ko wax néppi ci làmb kenn du ko dëpp lu yàlla dogal lu ñu ci dëpp lu yàlla dogal wax na ko ñi nga xam ne ay borom baatin leen waaye ñi am sutura nag mais ñiy wax fii nga xam ne bu yow bu picc naawee sax nga taxaw wax ko mais yàlla du dénk du du du wax secret ku amul sutura mais yow da ngay wax ba noppi ne Balla Gaye mooy daan ñu daan Balla Gaye nga xëy na non non dañoo dëpp làmb ji pour lan waxu man ni yow ay xale yu ndaw ngay waxal ah. ci ne. te loolu moo dal Boy Niang nga gis problème yi mu am ak ay famem ba ci ay sëriñam am na ñoo xamante ni gisuñ seen bopp te ñooñu dañ laan communiquer ak ak ak ak ak Boy Niang te Boy na fexe ba récupérer waat lépp lu mu amoon ndax dafa am yoon boo xamante ni man dama ko cee gis moom. dafa bokk ci mbër yoo xamante ni làmb dina leen sagal làmb dina leen teral làmb dina leen yóbbu fu sori te loolu li ko koy may muy mu sàmm ay nitam booy ñaar bu gisoon nit daf ko lu bon sax na fexe ba rafetal diggante moom ak kooku lu mu ko mën a moytu na ko moytu waaye bu mu fësal loolu diggante moom ak doomu aadama yi ndax li tax mooy dafa am yoon boo xam ne daf ci ne te yoon boobu boo ci nekkee doo fayantoo doo gessoo doo xuloo doo xeex li muy rafetal continuer ci yoon boobu yàlla mooy yël yëkkati malaanu sutura teg ko ci kawam te loolu lañ loon xaar ci tafaatin wax naa la ne su delluwaatul ak ay mbokkam ak ay sëriñam ak ay nitam dinañ ko daan jël bu rëy ndax wor moo nekk ci moom du ñàkk gàllaaj wor googu nag mooy trompe mbër yu bëree bare bare am na mbër yu bëri yu perte seen carrière ci làmb li leen ko yëbbee mooy